jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs média dale nag jàmm ci xibaaru marax yi doore ko rek ak garab yi faj jàngoro ji di coronavirus mu bokk ci protocole bi hydroxychloroquine ak li ñu duppee nag azithromycine pharmacien yu Sénégal nag ñi ngi xamle ne lim bu takku kon am na ci biir officine yi dara nag mën naa bañ jaaxal kilifa yi ci wàllu paj mi ndax la ñu war a yor yëpp kon yor nañu ko jëwriñ ji nga xamante ne moom lañu ñu dénk nag wàllu wér gu ñu def seen kéemtalaay kàttan buñ gisee kenn koo xamante ne nii yaa ngay wane mandargay jàngoro ji nag nga fexe rek ba daal di koy euh, signaler lépp nag euh, liñ ci jublu mooy fexe rek ba euh, lii di pandémie bi nag ñu gën cee mën a taxaw fii ci suñu réew gannaaw am ndaje moo xamante ne amaloon nañu ko Pape Fara ñi nga ab Pape Sangone Mbaye assurance bi mu ngi jóge ci ordre des pharmaciens ni ñaari molécules yi nga xam ne moom la ñuy fajee lii di feebar bi di Covid 19 maanaam chloroquine bi ak azithromycine bi ñoom duñu manqué fii ci Sénégal stock bu yaatu am nañ ko fi loo xam ne mun naa dem lu ëpp ñeenti weer. waa mun nañ dalal seen xel que lii di hydroxychloroquine azithromycine du manqué ci réew mi ndax grossistes yi def nañ li leen war pour que fu ñu toll ñu am lu ñuy permettre ñu daw ñu mën a am stock bu ñuy permettre ñu mën liggéey si juróom-ñeent si ñeenti weer. c'est-à-dire que tey pharmacie bu nit dem am sa ordonnance ñaari garab yooyu incha allah di nga ko am te prix bi changé wul dara yokkuwul. lu boobu boobule assurance ministre bi mu ngi ñaan pharmaciens yooyu ñu jàppale leen ñu détecté cas yu njëkk yi. relation entre pharmacie ak riposte bi dafa am solo parce que en matière de surveillance ñun ñëpp bu ñu seetloo suñu quartier yi bu ñu dara mettee pharmacie lu ñu jëkk daw pour laaj garab boo xamante ne mën na faj li xamante ne moo ñuy metti bon pharmacien bi mooy suñu premier moom mooy jëkk def consultation yi. bon nag ñooñu il faut que ñu wax leen ne si lutte bi ci la ñu bokk si riposte bi la ñu bokk bon à chaque fois que bu ñu seetlu nit ñi mu ngi ñëw jënd si garab boo xamante ne dafa xaw a jege lu mel ni Covid rek nañu ko poser ay questions jéem ko defal questionnaire jéem a waxtaan ak moom. bu ko defee donc riposte bi dans le cadre la surveillance day gën a mucc ayib. ordre des pharmaciens ak fournisseurs yi ñoom tamit dugal nañ seen loxo ci seen poos ngir jàpp fexe ba mbas mi jóge fii. ministère de la santé nga xam mooy suñu bunt. pour que euh, xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex ci Covid bi euh, ñu nit ñu indi ci suñ doole looloo waral tey ñu indi euh, don boo xamante ne ni biñ ko xaymaa yegg na ci téeméeri jun téeméeri million ak ñaar fukki million ñu daal di gunge ministre bi également ci chegu ñaar fukki million leneen li ci nekk lépp li ci topp lépp di nekk ay don yoo xam matériel la nekk ay lal yu ñuy yóbbu ci bërëbu fajukaay yi ak ay garab ak ay dispositifs yoo xamante ni nit ñi dañ koy soxla. ñoom pharmaciens yi di dalal xel ñii di askan wi ne leen médicaments yëpp ak équipement yi am nañ ci pharmacie yi leneen lu ñu leen di artu daal mooy ñu bañ a jënd benn médicament ci mbedd mi ci jamono ji fi mu toll. ci fàttali juróom fukk ak juróom-ñetti doomu aadama euh, ñoo am jàngoro yi mbas mi euh, ci bisub euh, tey ji juróom fukk yi ak ñeent ay cas contact la ñeneen yi nag maanaam ñeent di ay cas communautaire ci xayma Sénégal kon jàppale ni lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci cas la ñu wàññi ba yi fi tàmbalee ba tey ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñoo daal di wér ci mbir mi Sénégal nag ñàkkati keneen ci jàngoro ji lim bi buñ ko dee xayma muy fukk ak benn doom doomu yoo xamante ne ñàkk nañu seen mbakkan euh, ci mbas mi ñu daal di daal di dem ba seeti nag waa service d'hygiène ñoom it ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey euh, ci xeex euh, mbas mi ci noonu mu am ay agent yoo xamante ne tàggat nañu leen bu baax a baax rawatina ci wàllug dosage ndax liñ ci jublu rek mooy loolee ñuy jëfandikoo nag ñu fexe daal ba xam na nu koy defee ngir nag mën a rey doomu jàngoro ji Pape Fara ñi ngi lañ ciy àndal ba tey service d'hygiène nationale nag tàggat bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay agent ngir ñu jaamaarloog li nga xam ne moo nekk Covid 19 bi du nouvelle technologie de contrôle ci infection bi naka noonu stratégie de communication bu ko defee ñu am riposte bu baax. formation dafa nekk acte de guerre la te comme dañu nekk guerre il faut xale yi ñu gën leen tàggat ñu gën a xam virus bi gën a xam naka lañ koy xeexee ñu xam virus bi nu muy dundee ñu xam bi nan lay defee nañ wàllante. naka la ñuy def nag ba rompre chaîne boobu loolu ñu xam bu ñu duggee dans le centre de traitement fi docteur yi nekk lan moo fi seen rôle lan moo fi seen place naka la ñuy def pour dimbali médecin yi ba jàngor bi du ko wàll ñu aar seen bopp ak seen njaboot aussi ba nga xam ne ni jàngor bi du doon wàll loolu lépp dañ koy jàng. wàllu dosage bi tamit nekk na loo xam ne tàggat nañ leen ci ci bërëb bi nga xam ne ci la ñu nekk bu ko defee désinfection bi daal di mën a jaar yoon. jàng bi aussi dafa laaj désinfection bi ñuy def. dose létale yi naka lañ koy amee pour am cinq pour cent pour am 0,05 pour cent ak fan lañ koy utiliser bu dee ay cadavre la wala nga nekk tenue épi wala nga yor main gante kooku da ngay am cinq pour cent kooku mooy dose bi nga war a naka ngay def ba am ko mélange bi il faut njàng ko bu fekkee danga nekk des mains nues bu fekkee da nga nekk certaines surfaces thermomètre ay lunettes yi ban dose nga utile kooku mooy 0,05 pour cent concentration boobu nag ngay def am ko. leneen loo xam ne tamit jàngal nañ ko maanaam taxawaayu kii di agent bi rawatina ci ñi nga xam ne dañ naan jàngoro ji amut. paree ci contrôle l'infection boobu dañ leen di jàngal technique de communication naka lu ñu duggee ci marché yi gaar yi ci askan wi di leen yee sur les gestes barrières xamoon nañ ko mais rappel la pour gën leen a mën a armé nga xeex bi ñu mën cee dem ne xeex bi prévention rek ci la reposer comme amagul vaccin amagul garab. xeex bi yëpp prévention la doon. gannaaw bi la tàggatu nga xam ne ñoom amal nañ leen ko ñii di agent yu service di d'hygiène yi fi mu ne nag taxaw nañu ngir mën a dugg ci terrain bi ñaax askan wi xeex ak lii di jàngoro ji bu ko defee wàllaate bi daal di dakk rawatina ci kaa communautaire yi. ma kon foofu rek lañuy ñuy yemandi ci xibaaru marax yi mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax 20h euh, Chérif dina fi teew ngir jukkil leen xibaar yi ci nasaraan ñu leen di ñaanal jàmm.